am seen document te waaye boo génnee ci askan wi laaj leen dañ naan ñun xamuñu lu xew consultant bi day wax souvent ni boo demee Malaisie wàcc aéroport jël taksi boo laajee taximaan bi ci ma Mahathir na la ci wax lu bari mais boo ñëwee Sénégal waxuma la nga wàcc jël taxi waaye dugal ci bureau yi ñuy ne intellectuel lañ nga laaj leen plan bi fi newoon balaa ñuy ñëw mën nañu ci génneel ñaar wala ñetti aspect kon kan nga planifier parce que on planifie pour le peuple te peuple bi moo ko rapporté moo tax ñuy dalal xel nii lii premier acte kese la président de la joxe ndigal nii rapport bi ñuy tiire nañ ci bind provisoire loolu la joxe comme ndigal ñu bàyyi diir bu gàtt ba xam ndax dina am des remontées ay input yoo xam ne mën na enrichir document bi loolu bokkul ak panel yeeg séminaire yeeg porte porte à porte yi nga xam ne dañ ko war a def pour nit ñi gën a xam fan la ñu fekk Sénégal ak fan lañ ko bëgg a yóbbu en deux mille cinquante donc la démarche elle a été inclusive déjà mais elle va l'être jusqu'au bout étant entendu nag ni en démocratie bu ñu fàtte mukk ni acteur politique day ñëw ak profession de foi ñëw ne askan wi lii laa leen proposé wóolu leen ma ngeen jox ma ma déroulé ko donc ce sera fondamentalement l'expression et la transcription de la vision d'un homme qu'il la présenté à un peuple ñu wóolu ko ci cadre boobu jox ko mandat bu mandat boobu jeexee day dem évaluation ndax li mu déglante woon ak moom def na ko ou déet kon la démarche participative ne veut pas dire la coproduction d'un programme c'est un programme d'un président de la République moo tax loolu ñuy ut loolu ñuy ut moo tax il faut ñu am un consensus national fort teewul les idées vont s'exprimer les antagonismes opposition dina am pouvoir dina am syndicat dina am waaye nag may wax syndicat yi nii ma yàgg wax il faut ñu dem rebasing social parce que su ñu wax rebasing fii budgétaire et cetera la ñuy yem il faut ñu dem rebasing sociale bu gouvernement defee effort jàkkaarloog askan ne leen réew mi fii lañ ko fekk syndicaliste bu toog dégg ni 4 pour lañ la waxoon annoncé woon déficit yaa ngi 10 pour cent 73 pour cent lañ la waxoon dette yaa ngi 83 pour cent ak yeneen ak yeneen syndicaliste boobu bu jiitalee patriotisme war na xool nu muy moduler waate ses revendications bu jiitee patriotisme war na may gouvernement boobu un peu de temps mu essaye dabu ba noppi parce que ki ngay laaj mënul joxe lu mu yorut mun nga grève mun nga bloqué mais nit mënul joxe yow mi yor sa kër sa doom bu la nee chaque jour su may dem école damaa bëgg nga jox ma cent mille francs te yow sa salaire yépp boo ko dajalee cent cinquante mille francs la doo ko jox kon nañu xool lan mooy lu raisonnable mooy état bi dañ ko fekk ci benn niveau niveau boobu ñu fekk ko moo tax ñu njëkk a jiital naka la ñuy def ba premier sacrifice yi état bi ci boppam moom moo koy endossé moo tax ñu njëkk a poser le débat sur la réduction du train de vie de l'état lépp luñ doon dépenser cinquante nañu fexe ba wàññi ko mu dem trente loolu sooy woot nit ñi ci baax da nga ci jiitu moo tax ci fan yi président de la République bi conseil des ministres rek ñu jóge dafa joxe ndigal dinañ dajale syndicat yëpp après un travail d'inventaire mais li ñu bëgg ak yéen mooy un pacte social fort basé sur la vérité et la transparence Eliman Bële wax na ko léegi ndax ñaari Eliman la d'ailleurs mooy fu ñu toll rek yéen di ngeen xam fu ñu toll di ngeen mën a nattal seen bopp te ci accord yi bëri na ci loo xam ne jaaduwut taxam ngeen ko ndax yi ñu signé ci dernier temps yépp di parax paraxe pour bàyyil ñi fi nekk fardo noonu lañ ko defee ci recrutement yu jaarul yoon noonu lañ ko defee ci marché public yu jaarul yoon loolu it il faut que Sénégal yëpp d'accord ko ñu ànd xool loolu nuñ koy saafare moo tax ce contrat social dinañ leen ko proposer man d'accord naa suñu nee suñu principal problème Sénégal problème gouvernance la man d'accord naa ci li ñuy jàmbat yépp mi ngi dellu si ci gouvernance moo tax ce sera au cœur c'est déjà ci li ñu jot a dawalagum ñépp gis nañ ni problème gouvernance yitteel nañu du yem rek ci li fi weesu ndax loolu il faut mënuñu ko passer par perte de profit mais ni ko président daal bi waxee keroog day jublu it ci képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ci liggéey bi depuis le planton jusqu'au président la république nag ñu xam ni ku ñu confie responsabilité dërëmu askan wi dërëmu askan wi la loolu réew mu la ko gën a réussir mu la gën a développer rawatina nag réew yoo xam ne sa koom sa doole bariwul kenn ku ne bëgg di damm ci poosam loolu mënul ne et donc loolu aussi on est tout à fait d'accord wax nañu def nañu diagnostic ñëpp gis nañu diagnostic bi danga koy lënkalewaat ak li ñu wax ci état des lieux bi ñu fekk réew mi moo tax loolu mënul ànd ak li sama yaay ji wax gis nga na na gaaw rek moo ñu àndi fi ñu nekk nii na gaaw rek moom xam na ni ceeb soo koy bay dangay jëmbët jëmbat dem repiquer man bay naa ceeb xaw ma ndax yéen vallée bi di ngeen repiquer nga delluwaat repiquer bàyyi dem toog bàyyi temps bu mu màggee di ko surveiller nag pour picc yi bañ a jaar foofu ba mu yegg fu ñu ko war a góobee nga góob doog a dem yóbbu ci machine loolu est que dañ koy def ci benn fan gis nga na gaaw kuy gouverner rek bëgg nga mu gaaw parce que da ngay bëgg a gaaw am résultat askan wi kontaan mais loolu war a yóbbee ci parax paraxe ku ñu fal premier jour bi nga toog yaa ngi naan dans cinq ans nag war naa taxawaat jàkkaarloog réew mi donc il faut ma gaaw def ay affaire mooy andi nga dem leb lu ëpp la mi àttan pour tabax ay bâtiment tabax ay stade tabax ay tali ñu ne wiw liggéey na waaye laa ngi fi bàyyi loo xam ne say sëtaat sax duñ ko àttan moo tax kuy tabax dang ci da nga koy def ci tey ak dal li am solo rek mooy étape boo toll rek na ko def ba mu mat sëkk ba sécuriser ko def fondation def chaînage bàyyi mu wow nga yëkkati say mur def chaînage bàyyi mu wow nga doog a teg toiture ci jamono ci loolu la ñu woo Sénégalais teewul nag loolu sax da nga may jox occasion ma leeral dara ndax Sénégal dafa bëri dafa am ñoo xam ne dañuy bëgg a seppi dara dara ci contexte am yóbbu ko fu mu yeggul su ñu nee vision deux mille cinquante tekkiwul dañ ne Sénégalais toog leen di muñ ba deux mille cinquante. lool tam il faut mu leer ndax gars yi loolu la ñuy génn di wax nee na ngi na ngeen muñ ba deux mille cinquante déedéet nun dañoo bëgg étage immeuble dix étages waaye nag jàpp nañ ni weer wu ne wala ñetti weer yu ne mën na am benn étage pare donc mais deux mille cinquante dix étages yi dina mat loolu moo andi vision deux mille cinquante mais ñu teg ko génne leen déjà juróomi at yi jiitu lan lañ ci fas yéene def te ku ko gis xam ni lu ambitieux la kon yu mel noonu jar naa leeral xam nañu fi ngeen di waxee bu baax a baax a baax waaye dañuy woo sénégalais ñu ànd ak tey ak dal ak muñ ndax li yàqu démb la yàqu ba noppi feebar balaa muy feeñ ci yaram ñuy gis picc naan picc bi lan la fekk dugg na ci yaram bi bu yàgg boo ko buggee faj nag ndànk-ndànk nga koy faje wax nañu mbirum souveraineté ku xam suñu combat politique xam ni <coughs> souveraineté moo ko lal ak patriotisme ci bépp xeetu souveraineté te dina firndelu ci ni ñuy doxalee waaye dafa am yoo xam ne boo koy liggéey ci document yu mel ni du lépp lañuy exposé au détail du lépp la exposé au détail te léeg-léeg dañuy wax kuy yoot du sëqat waaye lépp lu ñu mën a jël mus a jël position ne lii moo ci suñu gis gi dañ ko doxal ba mu mat wax nga léegi mbirum mone mais ñun biñ ñëwee dañoo fekk suñu position dafa mus a nekk di mone bii lañu soxla pour defar réew mi suñ ko mënee am ci cadre yi fi fekk ba pare wasalaam ndax cadre yooyu dafa doon ensemble sous régional yu ñu liggéey pendant des ces années am na lu ci manqué waaye am na aussi ay atu yu am solo bu ñu naxantee ba sonn mënuñu ko faa am dinañ jël suñu responsabilité xam nga loolu lañu yàgg a wax waaye ñun biñ ñëwee toog dañoo ñëw rek fekk ñiy liggéey ci lool notamment la banque centrale ñëw présenté ñu ay liggéey yoo xam ne def nañ ko ba pare yoo xam ne la ñuy mbébét ñun lépp ci monnaie ma nga ca loola. la ca des mooy accompagner processus bi ba ñi ci war a addu muy la conférence des chefs d'État ak yooyu def li ñu war a def la ñu bëggoon ñun ne lii suñ ko amee méngoo na monnaie bi dina méngoog suñu koom ñu am ko ci cadre sous-régional bi moo gën. suñ ko mën mënoon am ci cadre CEDEAO c'est plus c'est mieux encore looloo tax dugg na ci document bi peut-être feeñul ci président présentation bi mais document rapport bi suñ ko tiiree di ngeen ko gis mais lu ñuy liggéey la méthodiquement graduellement parce que c'est des questions d'une particulière sensibilité mais musuñoo dellu gannaaw ci li nga xam ne moo ne woon suñu position kon yii laa bëggoon ci gàttal yokk ci xalaatin bi mais li ëpp solo ci li may wax man mooy lancer un appel aux soo son excellence président de la République dina wax ak askanam réew li koy defar mooy am njiit yu am gis-gis te jub muy benn am gis-gis te jub te lii ñu fi exposé tey am na ko wax léegi différence bi dinañu bàyyi aux experts le soin ñu jël li fi nekkoon li ñu fi jëlee ñu comparer kook li ñu andi ñun def nañ liggéey boobu ba pare de mais c'est pas à nous de le sortir tout de suite parce que vous nous subjectif mais ñu bàyyi leen ñu jël li fi newoon comparer kook li ñu andi dinañ gis ni ça n'a rien muy benn am gis-gis loxo yi set bu loolu amee ba noppi nag. lu jiit yi baax baax baax baax te amuñu une masse critique du peuple qui comprend les enjeux et qui fait bloc derrière eux dina jafe ñu tabax kon askan wi lañuy woo ñu def bloc derrière son excellence le président Diomaye Faye def bloc derrière la gouvernement ñu jublu ci liggéey bi brique après brique fi ne ñeen ñi jaar ñëpp ba egsi fii ñu egg ñoom ci tànk yooyu la ñu teg Sénégal fi mu toll nii don te bëggoon nañ buñ koy door ñu fekk au moins li ma wax keroog ci conférence de presse bi fekk réew mi nekk au rez-de-chaussée ndax dañoo ñëw fekk au troisième sous foo ñu remonter pente bi waaye à un peuple déterminé rien mais absolument rien n'est impossible kon loolu mooy fi may daanale ñu ngi leen di gërëm leen sant merci am na solo ñu ngi leen di jaajëfal bu baax monsieur le premier ministre messieurs les ministre ñu ngi jaajëfal ñi nekkoon ci paneel bi yëpp professeur Babacar Sène ak ñi ngi àndaloon ci panel bi yëpp kon mesdames messieurs dañuy gën a jaajëfal rek monsieur le premier ministre ak ñim àndal di leen bàyyi ngeen dellu seen place ma ñaanaan ñëpp ñu tàcc leen bu baax a baax merci beaucoup Et je vais rappeler que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, fera son discours solennel dans un instant. Mais en attendant, Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une petite pause musicale. Dans le tableau que nous vous proposons, vous allez voir deux styles, deux générations mais une parfaite convergence. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir à présent Al-Hajj Baba Beidimal et Popeseur.